mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM dal leen ak jàmm ci euh, seen émission démb ak tay ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi euh, jamono bi ñu toll nag ak euh, ni yëf yi demee moo waral waxtaan wi tey itam ñu di ko defaat ci ko téléphone ni ngeen ko déggee nag ci bande annonce bi tey dañuy waxtaanee ku mag ku fi jugee barki démb xew-xewu jamono ji sax moo ko yóbbu muy Mababa Diouf ñu gën ko xam ci Pape Diouf Pape Diouf moomu nag ngir waxtaanee ko tey gannaaw bi nu ko jaalee mbokk yi ak xarit yi dañu ciy dalal euh, ku ko xam euh, doon xaritam euh, ëpp na fanweeri at léegi muy Mamadou Koumé jiite woon fii agence de presse sénégalaise jiite woon fii itam ANPS di kuréel gi ëmb taskatu xibaar yi yëngu ci wàllu tàggat yaram sëñ bi Koumé ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci disponibilité bi. maa ngi fay Fatou di nuyu sa auditeurs yi. di la dalal jàmm ci euh, démb ak tey ni ma ko waxee ci ndoxteel gi ñuy waxtaanee koo xam euh, koo xam ni itam jamono ji li xew moo ko fi jëlee muy coronavirus euh, Pape Diouf Mamadou Koumé boo nu ko doon nataalal bu nu la ni kan la woon loo nuy tontu. bu doon ci tubaab damay wax ne seigneur la nit ku baax la nit ku tedd la nit ku am suturu la nit ku am teraanga la bu doon ci ay kàddu yu gàtt loolu lay wax li mu def ci dëkk bi mu def mm. ah, lu rëy la lu rëy boo xoolee depuis bu mu génnee àdduna ah, article yi ñu bind ci moom ni mu toll muy Sénégal muy France surtout wax li mu def ah jëfam liggéeyam ah, loolu yëpp wane na ne kii fi jógee ah, muy muy bett mais de mbiru yàlla la mhm. ah, eh, ki fi jógee nit ku mag la woon nit ko am dimension la waaw nit ku am dimension la mhm. alors bu ñu doon ñëwal tey ci jaar-jaaru Pape Diouf euh, mi nga xam ni nekkoon na journaliste d'abord ñu tàmbalee foofu mu nekk naataango ci ñun ñëpp surtout yow mi nga xam ne xëy na yéen a bokk génération. waaw ñoo bokk génération moom moo mag moom moo magee ñeenti weer euh, mais ay ay ay morom lañu ay xarit lañu euh, ay xarit lañu ay doomu ndey lañu. Pape bi nga fi jógee fii ah, fii Sénégal boobu temps fukki at ak juróom-ñett la am mu dem France bi mu demee France moom papaam militaire la woon. Hmm. Euh, bon papaam bëggoon mu nekk militaire mais bi mu ñëwee France dafa ne dafay jàng mu jàng mu dem mu dem jàng ji di jàng di def loolu di tubaab yi wax des petits boulots bon mm, euh, euh, bi bi muy di jàng mu mujjee dem poste poste la jëkk liggéey bu mu jógee liggéey ci poste bi euh, continuer toujours jàngam après nag dugg ci métier bi dugg ci métier journaliste hmm. ba nekk ci lu yàgg lu yàgg lu yàgg euh, man bi moo ko xamee boobu temps journaliste la mille neuf cent quatre-vingt-sept laa ko xam boobu léegi hmm. fanweeri at ñett la hmm. donc euh. euh, bi mu nekk mu nekk journaliste après journaliste mu nekk agent de jour muy toppatoo jour yi nga xamante ni dañuy jóge bëgg a jóge ci équipe bii di dem ci beneen équipe. ba mm. mu commencé ci africain yi mu commencé ci ñaari joueurs africains yi euh, Basile Boli ak Joseph Antoine Bell ci ñooñu ñaar la commencé. Mm. mu yore ay joueurs yi nga xamante ni ñu mag la ñu mag la yore yoroon ay Marcel Desailly ñooñu ñëpp bi mu bi mu bàyyee ka agent bi. boobu temps amoon na soixante dix jours yoo xamante ni moom moo leen doon gérer hmm. te moom moo doon euh, agent bi nga xamante ni du signé dara ah moom dafay euh, kàddoom da koy aar bu bu la waxee euh, ne lii laay def dina ko def donc moom daawul signé même contrat hmm. ah, bu ñëwee waxaax waxaa équipe bi wala waxaax joueur bi ñu déggoo ci kàddu ah ci loolu lay sukkandiku mais moom daawul signé kayit sax donc mu nekk mu nekk ci mu nekk ci mu nekk ci ba mu jóge foofu ñëw nekk manager nekk dirigeant wu euh, euh, Olympique de Marseille mm-hmm. euh, ba après yàlla def mu nekk président bi mm-hmm. voilà Marseille kon nag gis nga kooku ay jaar jaaram koo xamante ni yow da nga mm-hmm. jóge ci réew mi nga dem ne kii la da ngay def nga ni non dafa jàng ak yooyu loolu ku koy def ku am fulla la ku am fayda la boo boo xoolee jaar jaar yooyu ku bëgg dara la ku mhm. bëggoon a tekki la ah, tekki na mhm. alors naka la def ba dugg Marseille loolu jaaxal ñu nu bëri ndax. Euh, mais moom Marseille mais moom Marseille la. Mhm. <laughs> moom nga ari Marseille à l'âge de dix huit ans. Marseille ci biir ci Marseille nga dëkk Marseille dafa mel Marseille Euh, euh, euh, dëkk bu mel na comme africain yi ñu dundee ñoom noonu lañu ñuy dundee. Mm-hmm. ah bi club bi lay fekk fii ci Afrique boo demee da koy fekk ci ci Marseille c'est-à-dire que yow. boo fa ñëwee ñu boole la ci seen biir. Mm-hmm. dañ lay intégré bokk nga. Mm-hmm. kon nag kooku Marseille la woon. ah question bi ñu war a posé mooy nan la nit ku ñuul. def ba ñëw. ci biir tubaab yi ba occupé boobu position loolu la. question mooy sama laaj loolu sama la <laughs> def en que nit ku ñuul. ak racisme bi nga xam ne moo fa nekk voilà valeur la. Hmm. valeur que bu amul woon valeur duñ ko duñu duñu nangu mu dugg mu dugg ci biir valeur la valeur am la ah. dañ xam ni kii dafa xarañ. Hmm. ah euh, dañ ko soxla parce que am na valeur parce que bu amul woon valeur bu xarañul woon ko soxla loolu loolu nag Euh, dépassé nit ku ñuul ki hmm. ah. xool xoolatuñu nit ku ñuul ki valeur bi ñi hmm. mu xarañ moom lañu xool loolu moo tax ñu nangu mu dugg ci seen biir ñu nangu mu ñëw jiitaleen hmm. yaa ngi wax sànq ne bi ngay xam Pape Diouf journaliste la euh, yow itam ngay journaliste ni mu doon doxalee métier lan nga ci jàpp tey xëy na loo xam ah, ne journaliste bu xarañ la ñu bare ñoo ngi fàttaleku ne ah, Euh, liggéey bi mu doon def liggéey bu am solo la bu am maanaa la mm. bi mu nee journaliste fekk ne euh, Marseille euh, Olympique de Marseille amoon nañu benn président bu tudd Bernard Tapie mm. waaw Bernard Tapie kenn ñemewu ko woon foofu ci dëkk ba waaw ju équipe bi kenn ñemewu ko dëkk ba sax kenn ñemewu ko woon mm. foofu mais moom <laughs> Pape nit ku am fulla la ku am fayda la li mu li mu gëm loolu lay bind li mu euh, li mu gëm moom lay wax hmm. waaw waaw euh, alors euh, Bernard Tapie dafa jaaxle woon quoi ne mais comment journaliste bu mel nii man mu di ma mu di ma tëkku hmm. mu di ma diir mbagg mais diiru ko mbagg liggéeyam li téyam la doon def hmm. parce que Tapie bëggoon na ne bëggoon na ne bëggoon na pap mel ne bon ñenn ñi nga xamante ne dañuy tarbiyu dañu ko mais pap du tarbiyu daw tarbiyu nit tapi nit benn bés tapi dafa ko wax ne mais yow lu tax bëggoo ma ah, mu ni ko mais man mais man bañu ma la ah, parce que mais bañu ma la mais sama liggéey dama koy def. Hmm. waaw sama liggéey laay def waaw bañu ma la nag. Hmm. kon nag nit ku am nit ku amoon personnalité la nit ko amoon caractère la. Hmm. alors euh, bi mu nekkee ci boppu olympique de Marseille aussi def na fa ay résultat yoo xam ne yu am solo la ndax mun nga nu ñëwal euh, ci épisode boobu ci dundu Pape. mais bi bi mu bi mu jëlee bi mu jëlee Marseille Marseille ci vraiment ci suuf ci bu dëgg la kon ci suuf la ne woon waaw Marseille équipe bu rëy la dafa mais Marseille buy am ay crise la mu mu bëri la woon waaw yàlla def na sax moom gañewul am na yóbbuwul équipe ñaari final Coupe de France mhm. gañewul ñaari final final yëpp mais euh, quatre ans la nekk président ah mhm. euh, année bi mu demee année bi ci topp le Marseille nekk champion entraîneur bi nga xamante ne moom moo gagné championnat bi moom moo ko indi. Hmm. joueurs yi moom moo leen indi ça veut dire que année boobu bu fa desoon dina nekk champion de France kon nag euh, euh, dafa tabax bi mu tabaxee ndeysaan mu dem ah, ki ñu ki ñu ci dugal après moom moo gagné champion hmm. gagné championnat bi entraîneur bi nga xamante ni mooy Didier Deschamps mooy entraîneur de équipe de France actuelle bi moom la Pape recruté woon hmm. waaw kon nag voilà euh, que Marseille vraiment et puis mm, Marseille dëkk boo xamante ne supporters yi. Hmm. dañu am doole. Hmm. dañu am doole te supporters yi ay association ay groupe lañu. Hmm. ay kuréel lañu. waaw foofu moom boo d' boo dee président boo d' accord la ñoom mais du dox. moom nag vraiment dafa arrivé woon euh, fédéré c'est-à-dire boole. supporters yëpp ñu déggoo boole supporters yëpp ñu dégg ko. te supporters yi. dañ ko nawoon man fekke naa budul benn bu budul ñaar budul ñetti yoon foofu Marseille gis ni mu melax supporters yi supporters yi dañ ko bëggoon waaw loolu aussi lu am solo la nga nekk président club mu am ay supporters supporters yi am doole mhm. ñëpp nga jël leen euh, euh, wax ak ñoom ba dégg wax ñoom voilà loolu aussi eh, pour nga pour pour nit am ko pour njiit am ko Euh, lu jafe la mais moom amoon na ko foofu. Mhm. loolu lu ko ko may yaa ngi wax valeur sànq bëgg nañu nga dugal ñu en détail ci Pape ni mu doon jëflante yi. valeur ñi ko tax mu am loolu mu am. ni euh, Pape nit kuy euh, nit kuy aar kàddoom la bu la waxee lii lay def. lii lay def. Mhm. Pape bëggul nga wax loo xamante ni du dëgg. Mhm. ci moom waaw voilà. buggul mm, eh, nga di ko jëy buggu buggu buggul lool mm. eh, eh, buggul lool ku dëggula woon bëgg dëgg ku dëggu woon te bëgg bëgg dëgg mm. dafay ñëw mais ni na la man lii laay xalaat yow man bëgg naa li nga xalaat nga wax ma ko mm-hmm. mën nañu bañ a juboo mais damay respecté li nga xalaat mais man lii laa xalaat mm-hmm. voilà moom lu am solo la te li ci des mooy ne Pape amoon na benn qualité bu rëy rëy qualité boobu mooy ne mm-hmm. nit ku tabe la nit kuy dimbale ay nit lañu man euh, euh, euh, ñaari fan yi yi ma yi ma jot hmm. ah, du jeex ñoo xamante ni bon am na ñoo xam ne xam naa leen mais am na ñoo xam ne sax xaw leen woon hmm. bon comme xam nañ ma wala am nañ sama numéro téléphone dañ ma oo di seede pas pas plus tard que démb am na benn jigéen boo xam xamoon naa ko mais mosuma xam ne am na relation boobu ah, ah mu ne ma mais Pape mais man dama amoon jafe-jafe benn jour mhm. mais xaalis bi mu ma bi mu ma jox pour dimbale ma sax mais man bi ma ko joxee dama tiit mhm. waaw dafa daa dimbale nit te buggul woon que nit ñi xam ko que nit ñi gisu ko mhm. bu ko bu nit ñëwee di ko seet sax pour di ko euh, diir soxlaam dafay génn moom wala mu mu yàqoo moom. Mhm. ah bu amee lu mu koy defaral mu defar ko mais du ko defar mukk ci kanamu nit. kon amoon na sutura ci loolu dégg nañu seede bu bàyyeekoo ci ki nekkoon soxnaam aussi seede bi ba tey eh, jëm ci nii nga ko waxee tabe gi mën a dimbale nit ak sutura. defe naa defe naa ne moom dëkk bi. mënoon nga am ñu bare ñu seede ci ci loolu dégg naa seede ndey xadi bi. bu bu bu jabar ji mu newal tey aussi bu ngeen ko amoon loolu la loolu la leen see loolu la leen di seedeel mhm. ah, ay eh, rakkam bu jigéen bu nekk fii tudda màgget bu ngeen bu ngeen ko jotoon loolu leen di seedeel mhm. xaritam yi bu lee bu ngeen déggoon ay xaritam yi loolu lañ la loolu lañ lay seedeel nit ku mhm. baax la nit ku tabe la nit ku am suturu la ah loolu moo tax eh, demam bi dafa dafa metti ci ñëpp wante mbiru yàlla la dañ koy ñaanal. alors euh, Pape Diouf euh, bi mu jógee Sénégal di dem France dix-huit ans la am euh, taxul mu bàyyi Sénégal naam def na foofu dundam tekki na fa doon na fa itam dara alors dama lay laaj ci loolu Pape relation ak Sénégal lan la woon ginnaaw bi mu nekkee Marseille ak li mu fa def yépp ak li fa doon. relation ak Sénégal <laughs> doomu Sénégal. ak mm. Sénégal. réew mi bëggoon na ko parce que bon euh, Pape judduwul judduwul Sénégal judduwul France mhm. Pape Tchad la juddu parce que foofu la euh, pa am ne woon militaire la woon foofu la judd après mu ñibbisi Sénégal bu mu ñibbisee Sénégal amul at bon euh, amul woon at bon mais Sénégal fii chaque fois daf fi daa dellu si hmm. waaw ñaari at ak nii sax presque ñibbisi woon na presque ñu bisi woon na euh, ndeysaan euh, am euh, amul diiru at sax jënd na benn kër fële ci corniche bi mm. foofu la ñibbisi mais Marseille aussi dafa newoon Marseille mm. doomu moom Marseille la Dakar waa Euh, dafa daal dem Marseille di ñëw da entre Dakar et Marseille hmm. loolu mais sénégalais la comme ni ma ko bindee euh, ci ëllëg si bi mu génnee àdduna ne naa kii bu daa ñëw fii ci Dakar euh, bëggoon na ngeen toog ngeen waxtaan ci Sénégal hmm. lu fi xew waaw mu di la laaj mu di la interroger parce que bëggoon a nekk à niveau comme ni ko tubaab yi di mm. wax xam na fi xew loolu ku bëgg ku bëgg réew mi la mm. boo jëlee domaine bi nga xamante ni domaine football bi la mm-hmm. mais li mu def li mu def euh, defaral footballu Sénégal tax te laaju ci dërëm mm. ah euh, maa ngi fàttali keroog ne euh, Sénégal fi am nañu ñetti entraîneur tubaab yu toppante fi presque muy Claude Leroy muy Bruno Metsu muy Guy Stéphane ñooñu ñëpp presque moom moo tax ñu ñëw fii ah, ah euh, Sénégalais dañ leen dañuy bëgg entraîneur yooyu mm-hmm. woo ko ne ko mais Pape bëgg nañu ci entraîneurs yi ñëw entraîner euh, fii ci Sénégal ak yu mel noonu mm-hmm. moom mu dem toppatoo ko ah, te du ci laaj dara ki ki nga xamante ni ci ci moom la la commencé woon muy Claude Leroy mm-hmm. boobu temps agent la woon mais bi moo dem toppatoo yëpp ba Claude Leroy ñëw fii hmm. mais laajul dërëm laajul mais agent da ngay indi entraîneur da ngay indi joueur mais bu ko defee dañ lay fay hmm. mais laajul Sénégal dara ñaar ñi ci des Guy Stéphane ak euh, keneen keneen ki Bruno euh, Metsu hmm. laaju leen dara boobu temps sax newatul woon Euh, agent génn na ci agent bi boobu tam mi ngi nekk diri diri dirigeant Marseille mm-hmm. ah surtout bu ku mujj ki gis Stéphane mm-hmm. kon nag euh, kooku ku bëgg Sénégal la ku bëgg réew mi la ah euh, voilà ko xamante ni donc am na fi am na am na fi kër mm-hmm. boo demee kër yaayam aussi bu bu bu daa ñëw da ngay gis nit ñi nit ñi di ñëw foofu di di di daje foofu. Hmm. parce que Pape ñëw na xam nañ ne Pape bëgg na leen Pape bëgg na Sénégal. Hmm. Hmm. kon nag ko kon nag moom mosul tourner le dos Sénégal euh, à ce pays là euh, waaw. Euh, te li ma lay wax mooy ne Pape sénégalais la mais dafa daa dem ci dëkk Afrique yëpp ci dëkk Afrique yi bu fa demee dañ ko daa teeru comme le fils de l'Afrique comme doomu Afrique. pas comme doomu Sénégal. parce que fu mu mës dem ci Afrique. buñ koy recevoir vraiment euh, euh, euh, teraanga bu bu rëy lañ ko daan doon doon doon defal. Mhm. waaw parce que dañ naan kii africain la dem na France am na fa li mu am ah ñun ñëpp fierté la pour pour pour ñun muy Côte d'Ivoire muy Rwanda muy muy muy Burkina muy RD Congo muy Cameroun. muy euh, Guinée chaque fois bu demee noonu lañ ko daa recevoir. alors ñu des ba tey ci Pape juuf ak euh, digganteem ak Sénégal bu ñu xoolee li nga wax ne yépp kon mënees naa jàpp ne euh, li tax mu génne àdduna fii ci Ndakaaru du hasard. naam ñu ngi ko bëgg oh, yóbbu. Oh, waaw loolu du hasard loolu du hasard yàlla yàlla yàlla yàlla ko bëgg. yàlla moo ko bëgg mm-hmm. mm-hmm. loolu du hasard. sa sa digganteeg Pape la ñu bëgg a ñëw seen relation yéen ñaar wax nga ne sa xarit bu yàgg la alors yéen ñaar lan moo fas seen diggante euh, Mamadou Coumé. Euh, maa ngi fàttaliku maa ngi fàttali barki dem ci jour benn journal ne Pape man euh, bon doon naa ko gis doon naa ko gis Pape maa ngi ko jëkk a gisee soleil benn jour mu si foofu boobu temps journaliste la mu ñëw foofu. Euh, defe naa ni eh, eh, ndeysaan suñu beneen xarit boo xamante ni dafa génn àdduna daaw moom moo ko fi indi woon ku ñu wax moom Momar Seyni Ndiaye journaliste mhm. moom moo ko bu njëkk indi bës boobu laa jëkk tase moom euh, soleil eh, yàgg na ay année quatre vingt quatre la wala année quatre vingt trois la fàttale ko ma date bi exactement waaw bon bés boobu laa ko jëkk gis ah yooyu mu mu Momar ñu ko ah yooyu quoi ndeysaan après gisatuma ko ñu dem ma dem France man après dama dem France mhm. parce que nekk euh, nekk naa France pendant juróom benni at juróom ñaari at nekk naa France alors benn bés ci année mille neuf cent quatre-vingt-sept ñu invité ñu ñun ñaar ñu war dem Cameroun euh, am na benn footballeur professionnel bu mag bu ci année soixante yi génne na bu tudd bu tuddoon Eugène Ndioléa jeune Ndiala moom euh, football attaquant bu bu xarañ la woon ci euh, ñi euh, créé woon syndicat footballeur professionnel en France la la hmm. alors mais doomu Cameroun la. alors mu bëgg a lancer professionnalisme en Afrique mu bëgg a lancer en Afrique mu ni réewam lay commencer donc 1987 mu invité ñu defe na ay. mois de mars avril quatre vingt sept mu invité ñu bi ñu invité ñu dem maax paap ñu dugg on a pris le même avion benn volu Camer de tari à Yaoundé ensuite bi ñu ñëwee ñu wàcc ci même hôtel de hôtel moo fa de Yaoundé foofu la suñu relation yi commencé mhm. donc ci voyage boobu voyage boobu mhm. après dem ci invitation bi fekkee ko wax yooyu yooyu yëpp ñibbisi bi ñu ñibbisee moom Marseille la dëkk man Paris la moom chaque fois bu daay ñëw Paris chaque fois bu daa chaque fois bu daa ñëw Paris chaque fois bu daa ñëw Paris daf ma daa seet si chaque fois aussi man bu ma amee occasion dem Marseille dama koy seet si moom sax moom ma daa invité voilà noonu la suñu relation yi commencé. Mhm. alors 1991 ma euh, ma ma pare li ma doon def France may ma ñibbi si fii ci Sénégal mu ne ma may Mamadou euh, mais yaa ngi ñibbi mais man euh, dama amoon benn xalaat ma ne ko ban xalaat mu ne ma ñu créer benn journal ma ne ko waaw mais ah, yow journaliste nga man journaliste la loolu rek lañ mën a def. Mhm. donc septembre 1991 fii ñu lancé benn journal bu tuddoon le sportif. Mhm. le sportif septembre kan bi. bi ñu doon organiser Sénégal c'était au mois de janvier donc quelques mois avant. Mm -hmm. voilà kon nag voilà li nga xamante ni moo cimenté nan la suñu relation commencé di ko cimenté lool kon nag euh, mosul changé mosul varié. fii mhm. bi ma ko xamee en 1987. chaque fois bu daa ñëw fii Dakar daf may oo bu ma oo ñu toog ñu waxtaan sauf cette fois-ci ndeysaan. Mhm. bi yoon bi mu ñëw gisewul sauf cette fois ci mm. woo woowu ma mais chaque fois bu daa ñëw Dakar il m'appelait mais Mamadou il faut qu'on se voit ñu discuter mm. ñu wax euh, bu nee Marseille am na yoo xam ne daf ko daa soxla wala daf ko daa laaj daf may woo mm. waa waaw voilà mm-hmm. euh, bi mu nee président Marseille man chaque fois bu ma demee en en France daf may invité mais bien exil ba Marseille bu ñëwee ma seetaan benn match ma dem dafa daa invité sax invitation la daa def mhm. ah waaw mi disait ma attends ja jëlal avion bi nga ñëw bu ñu ñëwee boo ñëwee ñu xool ah loolu nit ku tabe la waaw mhm. waaw loolu moo doon moo a suñu relation ensuite euh, nit ku nit ku nit ku baax la nit ku baax la bu parce que euh, daf la daa laaj fii Sénégal bon par exemple am na ñoo xamante ne dafa dafa leen xamoon ci milieu sportif bi mhm. euh, euh, wax lan laa lan laa mën a defaral ñenn ñi te mhm. mu defaral leen ko voilà mi ngi leen doon bàyyi xel voilà mhm. voilà alors ñu dellu siwaat ci moom Pape dégg nañu ci sa seede nga wax ni mosoon nañu ko proposer poste ministre fii ci Sénégal oui absolu absolument ci <laughs> absolument benn jour daf ma oo mu wax ma ko mu ne ma ma du woo du ma du ma wax du ma wax du ma wax mukk kan moo wax naa wax naa wax naa wax naa ni eh, dañ ko woow mais man du ma wax mukk na la affaire bi demee hmm. parce que daf ma ko confier du ma ko wax hmm. ak dañ ko oui oui hmm. lañ ko woowoon ni ko yow dañ soxla dañ bëgg nga ñëw nga nekk ministre des sports mu ne maa ngi Eh, jéggal leen ma parce que moi j'estime fii au Sénégal am na quand même doomu Sénégal yoo xamante ni mën nañu mën nañu occuper poste boobu man du ma jógee France ñëw di occuper occuper poste boobu mais mel na ne dama leen ñëw dama leen di jàngal dara wala dama leen di indil dara loo xamante ni nañu ko am ci doomu Sénégal yi nga xamante ni fii la ñu nekk fii la ñuy yooyu hmm. waaw loolu nag am na ñoo xam ne neneen nañu ko déggee jàpp ne xëy na dafa bëggul woon liggéeyal senegal wala xëy na dafa xeeb Sénégal koo xamante ni dafa euh, de façon dafa indépendant woon. Hmm. dafa indépendant woon mooy ne bon bu ñëwoon sax di li di li bu ñëwee di liggéey yow bu gisul lu mu xamul. Euh, bu comprendre dara dina la ko wax. Hmm. waaw loolu moom euh, kenn mënu ci woon dara la kulli ali noonu la mel. Hmm. Ah, waaw noonu la mel. waaw Pape du woon nit nitu demi mesure ni ni tubaab yi di wax quoi. Hmm. Euh, nit ku entier nit ku entier la Pape waaw nit ku entier la woon. d'accord mais du du bugguma du bugguma du bugguma euh, servir Sénégal ci niveau boobu. comme comme comme football bi d'ailleurs. Mm. même chose. loolu la may wax toujours et man duma ñëw fii naan damay jël responsabilité ci football bi parce que fii am na ñoo xamante ni euh, subaax ngoon depuis ay ataxaat ñoo ngi xeex. Mm. ñoo ngi ñëfe ci football bi man du ma jóge fële naan damay laaj dara du ko def. Mm. kon dafa jàpp ne moom bu ko defoon day ñëw jël palaasu jàmbur wala loo xam ne. voilà du voilà loolu la. d'accord ko def parce que ñu nekk fii am na ñu mérite. Mm-hmm. dafa amoon boobu humilité humilité la amoon na boobu humilité. d'accord waaw. d'accord euh, paa doon na def politique euh, ndax euh, doon na fi yootu mairie bu Marseille ci atum 2014. Ah, hmm. nekkoon ci boppu benn collectif ah, citoyen. loolu dégg dégg naa ko naan da doon def politique deful deful politique. ah bu doon def politique France aussi hmm, dina jàll. lu hmm. tax dina jàll. parce que ñi nga xamante ni ñoo woon ci nguur gi aussi en France. di eh, gauche bi moom homme de gauche la de toute façon Pape homme de gauche la gauche lay voté. Hmm. gauche la homme de gauche la. Hmm. ñu bare peut-être am na ñu ko xam mais man xam naa ko et puis homme de gauche la euh, bi gauche bi ñëwaatee pouvoir bi temps wu Hollande euh, d'ailleurs Hollande décoré na ko jox na ko Légion d'honneur ah. décoré na ko. Euh, euh, loolu euh, sénégalais yi koy am at bu nekk barewul ah waa gauche bi parti laaj laajoon nañ ko Marseille ñu ni ko kaay bokk ci ñun kaay bokk ci suñu liste waaw bon de toute façon Marseille droite bi moo ko moo ko yoree depuis bi gauche bi demee mm. depuis temps gauche bi demee ça fait maintenant près de plus de vingt ans Euh, parti de droite moo ko yore euh, foofu euh, alors bi ko gauche bi ne kaay nga bokk ci suñu liste ñu xool ndax dinañu mën a jëlee ñi nga xamante ni ñoo nekk de droite et tout ça mm. Pape dina leen déedéet du ma du ma bokk parce que moom dafa indépendant du ma bokk gauche bi parti bu mag la mm. parti socialiste parti bu mag la te moom moom moo ne woon au pouvoir bañ na loolu mais ci ci ci lan na dem ci mouvement citoyen la dem. Mm-hmm. mouvement mouvement citoyen doo nekk maire yi doo nekk mm-hmm. maire. doo nekk maire mouvement citoyen dafa bëggoon dimbale ñi nga xamante ni ah ñoo newoon ci mouvement citoyen soxla dañ ko soxla mouvement de quartier yooyu mun leen wuy man man dinaa ñëw euh, ànd ak ah, dimbale leen mm-hmm. mais du woon du woon politique du woon wuti wuti maire wutul woon loolu waaw même même bu ci soobee bu bu soobee ci loolu oui soobu na ci loolu. Mhm. mais mouvement citoyen ki mu la la àndaloon àndul parti politique. Mhm. amoon parti politique bu mu bëggoon a ànd la bu nekk conseiller nekk maire wala ay adjoint au maire yi kon dina dem ci parti socialiste mais dafa ni déedéet du ma dem dama moom gars yi woon nañ ko ils lui ont la cour mhm. mu bañ. d'accord alors euh, Pape Diouf euh, moomu euh, digganteem ak euh, ay wayjuram euh, ndax mën nga ñu ci indil seede aussi wax nañu ci. li li ma xam laay wax. Uh-huh. man papam xaw ma ko gisuma ko gisuma ko. Mm-hmm. yaayam laa doon gis. yaayam mère bu baax la. mère mm-hmm. bu am sutura la. Ah, mère bu yaatu la. Euh, maire Aminata Mbaye yàlla suuf sedd ci kawam euh, euh, man kooku laa xam te Pape daf ko bëggoon ah, mu bëgg a Pape ah, ah, a Pape defaral na ko lu nekk lu mu ko lu mu mënoon a def yëpp defaral defaral na ko defa mm. defaral na ko mm. waaw maire bi maire bu baax la maire bi ndeysaan ci quartier bi foofu nit ñi dañ ko bëgg bopp fi mu fi mu dëkk ci këram gi foofu Euh, euh, boo ñëwee fekk nit ñi fa daa ñëw bu heure añ jotee dangay ngay da dangay da ngay da ngay da ngay jaaxle hmm. ah da jaaxle mais mère bu généreuse la defe naa générosité pap ci yaayam aussi la ko la ko jëlee man loolu laa xam loolu laa mën a seere hmm. am na rakkaam bu jigéen bu nga xamante ni ñu ngi fi maa ngi koy jaale ñu ngi tudda màgget nit ku baax la aussi kooku tamit li ñu jël ci yaayam euh, lu lu lu bare la lu rëy la waaw lu bare la lu rëy la mm-hmm. ah euh, kii demu bi mbiru yàlla la mais metti na ci moom metti na ci ñu mm-hmm. alors seede yi topp ci génn àdduna Pape euh, Mamadou Koumé yow ban jàngat nga ci def Emmanuel Macron waaw mais loolu seede yu bare yi yëpp boo liiree démb ci guddi dama toog di di lire euh, française bi di lire journaux français yi gis seede yi ni ñu bare mm. ah. ah gis seede yi ni mu bare même ci réseaux sociaux yi même ci réaction yi ah yow da ngay dégg gaay naan wéy mais man euh, euh, du ma woon supporter Marseille mais nit kooku nit ku nit ku baax la woon ah ah, ah, ah euh, waaw seede yu rafet seede yu rafet gi dégg ngeen même président wu France bi envoyé benn message président au Sénégal mm. ah yooyu Ah, euh, président wu club français français ki nga xamante ni moom moo euh, aujourd'hui ki nga xamante ni moo gën a am tour ci président wu club français yi muy mm. président wu olympique lyonnais bi tudde Michel Aulas euh, wax ju rafet la wax ci moom te man xam naa ne ah moo moo moo pap sax daaw ñu jaaroo tal mm. mais pap fulam faydam mm-hmm. compétence am moo tax waa ji mujj ko respecté boo déggee li bi mu bi mu ko euh, bi mu def ci Pape hommage mm. bu rafet la am na ñoo xamante ne sax dañ naan hommage moom bi mu def moo gën a rafet que hommage au dirigeant actuel olympique de Marseille mm. olympique de Marseille mm-hmm. euh, ni ki noonu aussi président Emmanuel Macron delloo na ko njukkal ci ñi mujjee la bokk. Ah mm-hmm. mm. waaw Emmanuel Macron wax naa la envoyé na benn envoyé na message. Mm-hmm. Euh, président Macky pour wax euh, euh, vraiment Pape liggéey bi mu def euh, France niñ ko considéré foofu estime biñ estime biñ ko bi ñu bi ñu am ci moom. Mm. biñ ko am am ci moom bi am ci moom foofu mm. France. Mm. alors yéen bi ngeen yégee génn àddunaam lan la lan la def ci yéen Mamadou Koumé ah, surtout <laughs> koy loolu loolu jarul laaj loolu lu metti la lu tiis la lu diis la bon waaw ah, mais euh, mbiru yàlla la mbiru yàlla la ci yàlla la ñu jógee ci yàlla la ñuy dellu mm. da ngay gëm waaw mais metti la ah dinañ ko ye koy dinañ ko yàgg jooy mm. waaw lu metti la metti la lu métti la mais dañ koy ñaanal loolu rek moo ci def dañ koy ñaanal. am na yu aussi ñu jàpp c'est aussi pour Golbert Diagne ñu koy jaalewaale ne ni ñu dundee noonu lañu génne àdduna ay nit yu mag lañu woon waaye sutura si ñu doon doxalee doomu aadama yi moo tax aussi seen lépp am ci sutura bu ñu xoolee Pape ni ñu ko dencee daanaka ñi ko gën a jege rek ñoo fa nekkoon ñu néew lañu woon ak waxtu week yépp ndax booba gis-gis nga am ci ay mbiram ginnaaw bi mu fi bàyyeekoo. waaw mais situation sanitaire bi tax na ne affaire yi deme ni mu ni mu ni mu demee. Mm. loolu moom lu metti la. xam naa ni bu doon ci situation yu normal mm. xam naa ni eh, affaire yi neneen neneen la ñuy loolu lu lu metti la mais mbiru mbiru yàlla dañuy gëm yàlla ñaanal ko ah. Mm. du ci sama sama sama sama kàddu du ci duma ci soree ah. ci sore ah nañ koy ñaanal nañ ko ñaanal. Mhm. alors Mamadou Koumé loo ñu mën a wax ci Pape lu ñu xamul wala loo xam ni waxaguñu ko euh, si seen relation ak xëy euh, na loo xam ci moom au delà de journaliste bi mu doonoon ak euh, agent bi ak yu ni demee. mais lii Pape le nit ku ku réaliste la woon c'est-à-dire. Euh, bon euh, euh, nit ku réaliste la dans la mesure où par exemple vraiment am na yoo xamante ni bu ko constaté ba pare bu xamee ni lii na lii lii lii lay demee dafay am benn da nga koy convaincre hmm. waaw loolu loolu loolu loolu loolu ci ci caractère ci caractère am la woon quoi Euh, li tubaab di wax ne il prenait la vie avec beaucoup de philosophie de beaucoup de philosophie mm. prenait la vie avec beaucoup de philosophie waaw et puis ensuite euh, li am solo mooy ne Pape du yow euh, nit ñi daawul def ki day wax ak kii parce que kii tekkiwu dara wala kii xale la wala mm. kii waa amul woon ci moom ñëpp yemoon ci moom waaw waaw boo ko boo taxawee ax boo ko euh, woowee nga wax moom euh, day day taxaw wax yow alors euh, li ma fàttaliku mooy ne par exemple bu ñu ñu daa ànd par exemple bon man Sénégal laa nekk maa ko gën a xam maa ko gën a xam Sénégal yi bon par exemple bu ñu demee ci stade ak yu mel bu ñu bu ñu bu ñu toogee moom benn waay woo ko wala benn waa ñu doy ma mu ne ma mais Mamadou kii nan la tudd ah parce que affaire bi daf ko doon gêné que nit ki ñëw euh, di ñëw wala euh, di ñëw di wax ak moom wala di jub si ci moom te xamul te xamul te xamul tur bi ak yooyu. Mm. loolu daf ko daa loolu daf ko daa gêné. Mm. daf ko daa gêné loolu daf ko daa gêné donc vraiment nit ku attentif la woon ci nit ñi. Mm. lu am loolu loo loolu loolu lu am solo nit attentif tu attentif attentif attentif ci waaw lu ma ci dolli dara defe naa ne bon li ma li ma la wax li ma wax ci ci ci sa auditeurs yi waxuma ko fenn mm-hmm. parce que may may nga ma ko ma ma wax ko mm-hmm. waaw li ci des rek mooy ne dama koy ñaanal mm-hmm. yàlla xaral ko àddina dañ koy ñaanal hmm? dañ ko ñaanal loolu rek moo ci des waaw mais addina euh, euh, moom euh, jaar na fii ah euh, bu ma leen wax ci français damay wax ne tekki na dara la sa vie a sens. Hmm. voilà parce que euh, <coughs> yow nga commencé fi nga commencé ba egsi fi nga egsi hmm. ah euh, fàttewoo kenn boole ci nit ñi ah, am sutura tabe ah, yàlla may la yàlla may la yàlla suturaal la ah, Euh, loolu vraiment euh, dañ koy kii rek dañ koy dañ koy dañ koy rafetlu mm. di ko ñaanal. Mamadou Koumé ñu ngi lay gërëm. di la sant amoon nañu mbégte dalal la ci démb ak tey ngir waxtaanee euh, Mababa Diouf ñu gën ko xam ci Pape juuf ngeen amoon relation yu yaatu euh, ñu doon kon delloo ko njukkal aussi ci waxtaan wi fàttali ki mu doonoon ak li mu jot def euh, dellu di la ko jaal di ko jaal mbokk yeeg xarit yi ak képp koo xam ni xamoon nga ko di doomu aadama ndax ni nga ko waxee Pape du woon Pape bu Sénégal wala. pas bu France mais àddina yëpp ñoo ko bokkoon Afrique yëpp euh, ñoo ko bokkoon ñu ngi lay gërëm bu baax Mamadou Koumé fàttali ni yow euh, jiite woon nga fi APS di agence de presse sénégalaise euh, jiite woon nga fi itam ANPS di kuréel gi ëmb journaliste yi yëngu ci wàllu tàggat yaram ci Sénégal. jërëjëf jërëjëf Fatou jërëjëf. ginnaaw seede yi Mamadou Koumé yooyu ñu déglu kaddu ndem si yàlla si Pape Diouf di entretien bi nga xam ni moom la mujjee def ñu tuddee ko être humain kon. kon laata ñuy dellu si di yëkkati waxtaan wi. Parce que déjà on, on s'en est aperçu lorsqu'il euh, s'était agi dernièrement des championnats du monde d'athlétisme. On a vu un tout petit peu les difficultés que les acteurs euh, euh, de l'athlétisme ont pu éprouvés euh, pendant toute la durée de, des Jeux. Euh, ceux qui ont choisi le Qatar euh, l'ont fait, selon moi, euh, euh, de manière très légère. Ils ont utilisé, on peut le penser, des critères spécifiquement financiers euh, pour cette organisation. Alors, l'histoire des morts, les morts dans les stades, cela peut choquer. Cela choque évidemment. Mais quand on veut prendre l'histoire, l'historique de ce qui se passe dans les pays du Golfe, que ce soit au Qatar ou que ce soit aux Émirats, euh, on sait pertinemment le peu de respect qu'ils ont pour la vie humaine. Euh, hormis les habitants de ces, euh, de ces Émirats, Euh, il n'y a personne, je dirais, qui ait une valeur humaine à le, aux yeux de, de, de, des, des, dirigeants de ces, de ces Émirats. Donc, euh, la mort, je dirais, de 2700 ouvriers, euh, parce que simplement euh, tout n'a pas été fait pour préserver leur vie, parce que simplement euh, ils ne sont pas considérés comme des personnes à part entière, n'est pas pour étonner. jouer la Coupe du Monde dans un pays comme ça, c'est à mon avis déjà aller contre l'esprit du jeu. Et euh, la Coupe du Monde au Qatar, euh, même si on peut admettre l'idée que les stades sont gigantesques, qu'ils seront euh, climatisés, qu'ils seront euh, peut-être euh, utilisables ailleurs par rapport à la manière dont ils sont conçus, tout ça ne fait pas, je dirais, le, le, le, le, ne respecte pas l'histoire du football, puisque la Coupe du Monde a toujours eu lieu, c'est vrai qu'il y a une diversification à attendre, il y a toujours, la Coupe du Monde a toujours eu lieu entre euh, l'Europe et l'Amérique du Sud. Il est vrai que euh, diversifier cette compétition-là paraissait tout à fait normal, tout à fait logique. depuis la première Coupe du Monde disputée en 1930 en Uruguay, euh, en passant même bien plus loin par euh, celle qui a été disputée en, en, en, Afrique du Sud, il y avait sans doute la possibilité de faire autrement. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le Qatar ne me paraît pas du tout être le pays à même d'organiser de, de, de la Coupe du Monde. Donc je, suis choqué, comme d'autres. Écoutez, vous savez, le seul club au monde dont l'actionnaire principal est un pays, c'est le PSG. Même Manchester City, euh, dont le propriétaire est le Tchèque Mansour, n'est pas n'a pas comme actionnaire un pays. Parce que le Cheikh Mansour, certes, est, David de, de, David Dabou, euh, de, euh, de, de, oh merde, c'est la tête qui Abu Dhabi, mais euh, c'est à titre personnel qu'il s'est investi à Manchester. Or, à Paris, c'est carrément euh, le pays du Qatar. C'est le Qatar lui-même. Et je crois que ça tue déjà l'esprit du jeu. Puisque quand euh, le Paris Saint-Germain achète un joueur comme Neymar à 220 millions d'euros, il y a là quelque chose qui n'est pas normal. il y a là quelque chose qui n'est pas logique, parce que les, les, les Espagnols ont toujours fixé leur clause en vertu d'une loi d'airain que personne, aucun club ne puisse venir chercher leurs joueurs. Parce qu'à 220 millions, c'était le maximum. Il était impensable, impossible de penser qu'un club puisse venir acheter un de leurs joueurs à 220 millions. Or, le Paris Saint-Germain l'a fait. Alors, euh, ça fausse tout. Ça m'amène à ne pas avoir de la sympathie pour le Paris Saint-Germain. Alors, euh, certains esprits m'ont dit euh, que ma réflexion euh, était due à de la jalousie. Parce que Marseille euh, n'a pas euh, n'a pas le Qatar. J'ai dit, oui, peut-être, si vous le dites, mais alors j'ai dit, euh, reprenons le problème autrement. Imaginons demain que le président de la Corée du Nord vienne et devienne notre, actionnaire principal. Que diriez-vous Et que dans la même semaine, il ait acheté Messi, il achète Ronaldo, mais en même temps, il jette sa bombe. Qu'allez-vous dire Et là, on me regarde avec des yeux de... Ah, ah bon, mais c'est la même chose. Pays contre pays, on peut. J'ai dit parce que le Qatar ne pensait quand même pas que c'est c'est pas quand même, je dirais, une monarchie vertueuse, le Qatar. Ce qui se passe aujourd'hui au Sahel hein, a quand même euh, partie euh, liée avec le Qatar, on le sait. On sait bien que certains groupes euh, islamistes, certains groupes, je dirais, euh, terroristes, ont partie liée avec le Qatar. Donc arrêtez de me faire penser, de me faire croire que ben, demain je vais essayer d'aller chercher Kim. pour qu'il vienne à l'OM devenir l'actionnaire principal. On verra bien. Voilà ce que je pense. C'est difficile de le dire, mais je vais quand même me jeter à l'eau et dire que c'est assez étonnant d'ailleurs. Une semaine après avoir éprouvé ma plus forte déception, euh, je connaissais mon meilleur souvenir à l'Olympique de Marseille. La plus forte déception, c'était la défaite que nous avons subie contre Sochaux en finale de la Coupe euh, de France. Nous étions en tête. Euh, il ne restait plus que 6 minutes euh, durant les prolongations et nous avons fini par perdre euh, le trophée au tir au but. C'était une grande déception. Je me souviens, c'est la première fois que je voyais Robert Ludwig qui était à l'époque le propriétaire du club, être très déçu. Et le samedi d'après, donc une semaine après, on va à Saint-Etienne pour jouer contre l'équipe locale euh, en championnat. On gagne à Saint-Etienne sur un but de Valbuena. Dans le même temps où Bordeaux perdait sur son terrain devant Nantes qui descendait, euh, que Lens perdait au Havre et nous projetait, ces défaites simultanées nous projetaient aussitôt en Champions League. Et je me souviens, c'était c'était quelque chose de formidable. J'ai vécu ce soir-là quelque chose d'inouï, quelque chose d'incroyable. Et Robert Louis Dreyfus, pareillement, puisqu'il n'a pas arrêté de m'appeler quand il est arrivé à Paris en disant c'est le pied cette, cette soirée. Et le samedi d'avant, nous venions de perdre devant Sochaux une soirée plus que triste. Robert Louis Dreyfus était un homme, en tout cas, qui aimait le football. Ça, c'est une certitude. Il aimait vraiment le football et, et chose étonnante, il connaissait aussi le football. Il le connaissait contrairement ce que certains ont pensé. C'était peut-être un homme qui euh, n'était pas aussi constant que sa femme, par exemple. Sa femme était très constante. Lui, était un peu moins constant. Et Robert avait ce défaut que écoutait beaucoup de gens. Il écoutait beaucoup de gens. Il pouvait avoir dans la journée trois opinions sur le même sujet. Au petit déjeuner, il en avait une. Au déjeuner, euh, une autre, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a une autre idée. Et euh, une dernière euh, lors du repas du soir. Et ça, c'est un peu, euh, c'est peut-être le défaut qui le caractérisait. euh, ça, alors, étonnant, surtout quand je dis que c'est un homme qui aimait le football et qui connaissait le football. Cela montre au moins une chose. En football, il n'y a pas de vérité absolue ou de vérité catégorique. Il n'y en a pas. La vérité en football est très fluctuante, très fluctuante. Et Robert, euh, c'est une activité qui peut permettre à chacun d'avoir une opinion et de l'exprimer. Si on parle de récession économique, seuls les économistes bontins peuvent en parler. Quand on parle de football, de match de football, n'importe qui peut en parler et peut effectivement présenter sa version, euh, taper du doigt qu'il avait raison euh, et que même peut-être la vérité se situe dans ses propos. Or, c'est pas vrai. Il n'y a pas de vérité. C'est ce qui me fait, ce qui fait que moi personnellement, quand j'écoute ce qu'on appelle aujourd'hui les consultants, euh, j'ai plutôt tendance à sourire. Et ça m'amène d'ailleurs, quand j'ai dit que je les écoute, je ne les écoute pas en fait. Avant les matchs, j'étais à mon poste. Après les matchs, je l'éteins. Parce, qu'il, parce que ce qu'ils racontent, ça n'a aucun sens. Et nous tous, on peut être consultants. Prenons un match qui se termine, dont on connaît les, l'évolution des acteurs. les résultats. Nous trois, on se met sur, sur, euh, sur un plateau et on parle du match. Mais on fait aussi bien que les, les que les pseudo-consultants. Ah, si, si Valbuena avait joué aujourd'hui, euh, si un tel avait tapé non pas sur la barre, euh, euh, l'autre n'a pas été très bon aujourd'hui, ils ne disent rien d'autre que ce qu'ils ont vu, ce que tout le monde a vu. C'est ça les consultants Non, très peu pour moi. En football, il n'y a pas de vérité. Quiconque arrive avec ses, ses vérités, tourne-lui le dos. mbokk yi kon euh, li moo nekkoon seen émission Demb ak Tay ñu doon déglu noonu yenn euh, kàddu ci euh, interview bu mujj bu Pape Diouf def ñu tuddee ko être humain mu nekkoon ci nasaraan waaye ñu njoxtu ne am na njeexitaloo xam ni mën na ko am bu ñu déggee kàddu yu dugg yi nga xam ne yëkkati na ko ci waxtaan woowu mu sekkoon ak sunu ay naataango yu studio woon ñuy gërëm Mamadou Koumé mi nekkoon suñu gan tey doon xaritu Pape Diouf ëpp na fanweeri at ak léegi ñu dellu jaal mbokk yi ak xarit yi di ko jaal Sénégal yépp di jaale itam Golbert Diagne mi fi bàyyeekoo barki demba du ñàkk xëy na moom itam ñu delloo ko njukkal euh, ci euh, nu ni mel ndax yayoo nañu ko euh, Fatou Thiam nga moo ne woon ci kàddu gi feggoo ak jaaw jàllo ci wàllu machine bi ñu leen di dig daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm